ne war nga maa wutal Ibrahima. ma may whatsapp. waaw ah. ah, fan yii moom gis naa ne yaa ngi ci yoonu yokkute moom fan yii. amiin ah fan moom yaa ngi ci yoonu yokkute. dafa waaye woon tëdd beeg lekk wëri geeg dem douche bi rek wàññi ci lu yam bu ne lu yam rek moom parfait moom parfait. non man taa yow ma jot yow taa waaw mais boo yeewoo da ngay njëkk a fëgg douche bi fëgg dugg. ah noonu ah, la loolu lañ fi am de de de sangoo bare. loolu lañ fi am de sangoo bare. loolu lañ fi am xaw def erreur maa ngi ci cabine bi booy dugg doo doo doo yëglu d'abord maa fëgg di. ah déedéet yëg lu woo. yëg lu woo man fëgg naa kay. yëg lu woo ñëw rek ne bëxaas dugg. ah nag ma fekkee jaadul léegi wuyu ma nañu wax nañu nañu waxtaan léegi wuyu ma. waaye lii nga def wuyu ma. léegi wuyu ma. Mhm. sa baay moom xam nga ni yurub. wérut mhm. ay nelawum doyu wérut jabar moom day wéri xale rek ñu koy mbara ah. yaa ngi dégg mhm. man nag xam nga ne man am responsable laa gis sama njaboot gi damaa njaboot ba yàqu damaa juró juró juró jur bay bëgg a dee yaa ngi dégg te tabaski gi jub si na léegi lañ doon wax daal comme que moom 500 nga koy nga waxoon moom nga koy jox. Mhm. jox ko 100 rek 400 yi ci des ñu def ko suñu biir moom yorut yorut di. moo gën tos loolu la ko romb de. moom ñaata la joxe 2500. waaw waaw man ñaata laa joxe. xool loolu sa amul solo. ah am na solo de li ma joxe ku nekk di nga am li nga war a am loolu amul solo. Hmm. gis nga affaire yi. waaw fi mu ne nii daanaka li mu li mu génn. waaw waaw waaw léegi li ma bëgg mooy. day bëgg a yàgg man su ma sañoon da ngay mel. day bëgg a yàgg waaw damay déglu da ngay mel dolli waat ku nekk 100000. waaw léegi génn gudd ma dama déglu ma la rek. waaw dama dolli ku ne 100000. waaw lu mu gàtt a affaire bu génnee ku ne di nga am un million. doon nañ ci wax man ak moom. waaw lijjanti ko lijjanti leen noonu. cos man man kanaara yi buñ sëccul ci yow dara dara ma jaaxal buñ sëccul ci yow dara. bëgg nañu la tole waaw ma waaw damaa bëggoon doon nañ ci wax man ak moom sax pour ñu lay joxaat na ñi gën a dugal muy gën a yokk ah, na ndax ren ci naar bi la aju moom daal mm. insha allah rabbi yi mm. fii ak quinze jours xam naa au maximum dana génn ah, kon baax na waaw su ko defee bëgg naa ñaareel loolu lépp ci loolu lépp ci yow la aju rek. bëgg naa ko bëgg naa ko lépp ci yow la aju tons. ñaareel ak problème parce que sareet bu baax. sama nijaay dama la bëgg. waaw man xam naa loolu. réew yi am rek. xam naa ne sama waa nga. asalaamaaleykum ah, ah, maaleykum eh, salaam maaleykum salaam. Ah. ah toog leen toog toog ah na ngeen dem. maaleykum salaam ah tubaarkalla tubaarkalla ah na ngeen def waay. alhamdulilah. waay kàlla na ngeen def ah jarbaat. alhamdulilah. sama jër baat laa seetaan nga sa nijaay. non seetaanu ma sax sànq di nga nijaay ci loolu lañ doon waxtaan quoi. Hmm. ci loolu lañ ne ko. ah waaw mais bu dee yaakaar na gaaw bopp waaw waaw. Hmm. ah ajaraa ngi. Ah, ne ni. kii mooy sama ah, cappali bong bong na bong bong. ay ay xanaa daa mbokk muy jaay bu cappali bong bong. ah bong bong yaa ko tudd. kii moo ma naan bee. ki nga xam ne xale yi ci mbedd bi pas bëndi lañ lay wax. bee la may wax kii. pas bëndi lañ lay wax yaa saay saay na ngeen nag càppale. waaw bëgg ñam ngi jaam bong bong jaam rek. soo des na rek sunu sunu sunu sunu. ah, ah, ah sunu wo na ngeen dem nag. yaa ngi ci jàmm. Mm-hmm. alhamdulilah. Mm-hmm. bong bong. waaw bong bong yéen a ngi jàmm. man sa séeri laa man de man sa séer. la ba jàmm la ku rëbbët la def ba la suñu ta. suñu taala. lan na mosum diw nii. la am na luy xeeñ de waaw naka njëkk ma ne ba nga ko wut sànq. ki bul juug bul juug nañ ci ndox mu jaar. def ci ndox de. Eh, bu fi ñëwee manque bi ñëw bu ñëwee tey suba. li jaay kenn tooñu yaa tooñ yow xuma ay xarit nit de doo ko am. mu mu mu del ànd ak del ànd ak nit suñu taal ñaan waaye nitewul lool de. 100 pour 100 wut de. soo def naa def. pour 100 wut de maa ngi noo tudd nga ne. Adja. Adja dëkk fii. kii eh, de. non yow yow noonu yow nag a bàyyi sama sama sama classe gii nii di. a bàyyi nga xam ne jeexal lan. bàyyi sama bébé bi. yow xoolal du yàgg sax doo a génn. jàpp ci ma ko. par kii ma rek après. mooy kuñ awali bët war na fa ngay xool. général général. tos ci kanam dégg nga waaw maa ngi waaw. baax na waaw instant bii sama bii bi a nambe. nambe asu mbub ji di waat naa ko ci yàlla boo ko béyul. billaahi da ko génnee ëllëg di nga ñëw fii ci jógal ma fi jógu dara. bàyyi nambe asu mbub ji. waaye war na yëf yi de balaa mais sa yee moom yaa ngi baax. ah maa ngi maa ngi kii de mais yaa ngi am na am naa ba di nga deere fi ne desetoo dara sa dem naa bu xew. ji la. da war a ba nambe ji. ndambe jee ma rek. ah ndambe ren bu ñëwee rek mu jeex général lu mu la ko ci kanamam da ko doon suuf dalay suuf yow da ko doon jël. yow man mii man. man mii général ko doon jël. wallaahi. fii waxoo dëgg de bu sama bu ma amoon yi vidéo mu wi dama ko bëggoon. vidéo sama dëgg nee na waxoo dëgg. waxoo dëgg damay kañ su ñaane bi la ñu bu neex bii nga may soxoree. yaa ngi ci tànk ñàkk de. général du ma def loo saab jër baata ah. daal ah. yoroo de boo ñàkkee kii. kii jomb na de. kii sa xarit kii du sama dara ah. ay dox daje lañ. dox daje du sama dara. looy duggee ci sa douche looy duggee ci sa douche soxor dong la def. kon looy duggee ci sa yow may ma. yow Salick Ndiaye bi leer man soo ko yi nga ma bëgg a xañ. dégg nangu ma bi sab takk ko ñaareel doo am loo neex. suñ jóob. Mm. naa la. Mm-hmm. mooy balaa jëm ak yow nag xam nga nit nit boo ko doole ñaari yoon nan la koy wane. nangum jëlam takk ko ñaareel. suñ jóob bu ko général dul naa la mos a ñuus sa kanamu doom yi de man yow. man yow laay ma naa la mos a sama lii dugaluma la ci bii léegi waat naa ko bu sama soxna newul yéen ci biir ñu song lay ñuus ñuus sa jabar wala mu ñuus la ajaa ñuus sa jabar bu du moon ak kii mën la jugal ñibbi xanaa loolu gën a dee xanaa ah, bu doon li mu ruski mën leen jugleen ñibbi dinaa wuti ah? ah, ruski mën leen jugleen ñibbi génn sama kër ñu dem ñu dem sax yow secret man de booy bi da lay mbaraan bëggu la de waaw booy bi insulte na insulte insulte na jotee waaw ba ñu leen di xaar yaa ba ñëpp ñaanalante keroog la tooñoon nan ko baal tabaski jotee waaw ba ñu leen di xaar yaa ba ñëpp ku la tooñoon nan ko baal baalu naa boo ñëw saari booy ci koñ man man ba bàyyi ñu fi ñun ñii di di di di toppaay non li ngi tudd maa ngi sonal ah, ni mooy loolu. am contentement bi ma fi ñëw rek. ah maa mooy loolu quoi sax bi yow man li ma jaaxal ci yow yow yow noo noo fi mën a bàyyi yow. sama classe gi yow da doon topp paa yi nii. moo ma jaax man kay dama laa yee man maa la yee man xamu ne woon suñu koñ yi diggante nu nii. Hmm. ma la yee xam rek laay rëy. ndekete comme nii nga dëkk nii. ma jaaxal. da yi nii. Hmm. sama ginnaaw lañ nekk. lu ñu yor maa leen ko jox déedéet kay la nekk. Hmm. nga xam ko. te yow xoolal tabaski ren gi yow bëggal. yow bëggal rek. moom en tout cas li ma lay wax mooy su tabaski naa hmm. xam nga après da ngay wax ni nga bëgg mën hmm. naa kursi lépp ah. bu ragal nag loo bëgg ne ma lii laa bëgg ma kursi ko te ko loxo jeex na géej gi sax boo bëggee dama koy jëli bëggal ah. monument de la renaissance dama koy jëli jox la bëgg a reyewu def sang sa ziyaare baax xol dafa war a neex bal ma xaq na la